une chaîne de télévision culturelle et religieuse Rafah TV ñëppay dañ agréer إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا عسى يكونوا خيرا منهم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمذوا أنفسكم ولا تنابذوا بالألقاب بئس ولا تنابذوا بالألقاب بئس الإثم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون mbokk yi di fi teew ñu ngi leen di nuyu baax di leen ziara di jiital ci nuyoo beeg bi eh, kilifa kër gi sunu bàyyi Sëñ Mbàkke Fadiama di ñaan suñu boroom sàmm ko te wéral ko yéene yi mu am ci liggéeyal ko Cheikh Sawaalo ci keppaaru Serigne Touba suñu borom mottale ko nuyu waa jataay bépp rek di lu teewaay bu baax a baax di ñaan suñu borom jubluwaay yi nga xam ne moo waral jataay bi ak suñu mbokk yi nga xam ne ñoom la bëgg a dalee xasida gi muy wàkk ci Serigne Mor Soxna sunu maam jubluwaay yëpp suñu borom mottale ko xam naa ñu ñëw ci xasida gi ci lu gàtt rek. xam naa mbokk yi xam ne eh, lañ la saqaafiya bi ñoo sàkkoon ci nu ñu def xasida gi ngir dalale ko eh, sunu mbokk yu baax yi di waa kër sunu maam sëriñ si Mor Soxna di ñaan xalifa ñaanal xalifa yu sunu borom sàmm ko mottali yéenam monsieur Moussa kon xasida fi dikri wa madaxi cheikhi Mor Soxna ibnu borom saam radiyallahu anhuma wa ardaahuma wa anna amin ñu ngi ko defoon ci baxaru basiit xam naa ñu jaar ci jaar gaaw rek ndax waxtu dañoo xoj ma tàmbalee ko ci qalbi yutalibuni bi nadmi abyaati li madxi cheikhin jalilin di fa xooraati qalbi qalbi qalbi yutaalibuni bi nazmi abyaati li madxi cheikhin jalilin di faxaaraati arnil fatal bikr cheikh mor soxna muntasiban li cheikh mor jaara mamduuxal qasidaati wa soxna jaaya surang min usratay sharafin akrim bihi min karimin di majaadaati mashhuratayni bi ilmin والتقى وصلاح النعم ومك من أرباب الفخامات من كان في فرقان بانت ولادته مقام جدته ذات الفخارات جماد لولا كهن في جمعة بسش بهجرة المصطفى خير البريات تعلم الذكر بالإتقان حافظه لدى أبيه مجيز القوم ساداتي وكان والده يوليه تربية سليمة بفعال كالمقالات وكان همزة وصل بينه أبدا والأصفياء بتداول الرسالات مؤهلا من أب برا يلازمه مساعدا عضدا قضاء حاجاتي كما تبحر في شتى العلوم فتى زان العلوم بأعمال جليلات هدى وقد بايع الشيخ الخديم لدى تين جرف بعد تعداد الزيارات يهدي إليه هدايا كان يرسلها معه الأب الندب أنواها النفيسات ونال منه قبولا أي من الشيخ الخديم ونال منه قبولا حين قال له مع القرابة بايعناك بالذات مرني كغيري بما تشاء كخدمتكم في الزرع والنحت مع كتب له لكم ياتي مرني كغيري بما تشاء كخدمتكم في الزرع والنحت مع كتب لكم ياتي وسر منه بصدق القول في كلم زينت بهم رفيع كالحماسات وظل مستتبا له مصاحف مع أمناء مع أمناه وهي على إتقانها تاتي له يقدم خدمات تطيبه قلبا بكل جهودات سنيات حتى برضوانه فازت مهمته وصار من خيرة الأخيار قوداتي شيخ جليل جميل الخلق مع خلق ووصفه الدر ذو صدق العزيمات مثل الذكاء وحسن للتعامل مع إخوانه كالأب الهادي لغاياتي مشاهب مشابها لأبيه في الصفات وفي أفعاله وارثا يبدي الكرامات كانت bi am naiman rabbat rabba alaaqatuhu wa tiilatan tiibuha kalmiski raaxaati lahum yukinnu widaadan saafiyan wa lahum yuuli ihtimaaman kabiiran bilhadiyaati kaman lahu qad ataa ba'da alxadiimi mubaayi'an min alawwaliina xaadima addaati muhammadi almustafa alzamiili xiinahumaa kaanaa ladaa alabi darsan fi mahaaraati wa sheykhi fadli alladi kabat مقولته على سقاه دليلا للملايات بأنه ذو ندى قد كان لي وأخي وأخي الكبير سيارة يهدي أبياتي بدءا كذا الشيخ عبد الله ثالثنا ونيلها حينها صعب بإثباتي وكالأخ وكالأخ الحب الشيخ السوالو وكالأخ الحب ذاك القرم صاحبه شيخ السوالو وكانا في الأخوات مخاللين وقد كان الأخير إذا أتاه ضيفا لإسقاء المودات محكما في شؤون البيت جملتها حتى يودعه نحو المهمات تبارك الله mi ngi ci daaneel gi mel na ne tax day mel ne fi mu solo mooy bu ñu ko daaneelee كذاك كان إلى أن جاء رحلته في نص تاريخ مولد له آتي جماد الأولى بجنشش ووري في مصوب جار أبيه أرض رحماتي وقد رثاه فحول في قصائدهم أبدوا مكارمه بذل النصيحات كي نقتفي رجلا للناس جاء مثلا في وصفه بجهودات جهيدات خلافة الأب قد كانت على يده له وأحسنها مشكور خيراتي قد عاش والعمر محدود محمود يخلده ذكر جميل عميم ساد قطراتي عليه لا زال رضوان بوالده وشيخه ودم الإيمان ساداتي وخير أزكى صلاة بالسلام على المحمود والآل أصحاب المقامات وصحبه الكرم ما قيل فيك ثنا لا يكمل الوصف يا كافي الدجنات إليك هو وهو مدح جاء لذكرك من أحفادكم يا سنيا بالفخارات إليك هو وهو مدح جاء لذكر لذكرك من أحفادكم يا سنيا بالفخارات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 fas yéene ñëw ci xasida goo xam ne ni ñu ko def ci diggante rek ñaari kilifa yi nga xam ne ñoo seq bis bi tey di Serigne Mor Soxna mi nga xam ne moom lañ ko tudde ak Serigne Cheikh Achoua bi nga xam ne moom lañ doon fàttaliku ak njabootam xam naa xasida gi sax tax koo gudd ñu defoon ko ci Baxrul Basit tàmbalee ko ci bismil ilaahi ma jub man Moustapha wayati te way fa jëmm yu baax ngir am ca barkeeti bismil ilaahi ma man Moustapha wayeeti te way fa jëmm yu baax ngir am ca barkeeti ibna muhammad borom sànn niñ xamoon ci tabe ak jaam buur bi tawee tël di soññeeti taawam bu baax ba sëriñ Mor soxna déetu fi gis te ci biir sang yi ndax raw na ñëpp teeti bu naas tawaala mi topp ci raw ngay kanam dawi xel ci yoonu ñu bu yeeti seen bàyyi leen xamaloon quraan ñu man ko bu ba man ci xifsan wa tajwiidan li yee neeti xam-xam itam moo ko def ci ñoom ba mujj ñu doon ay géej yu fees dell doon jàmbaar yu raw teeti mu dell tarbiye leen def leen ñu doon royukaay doy sëkk ay royuwaay moo leen ku soobooti gannaaw ba lañ soobu yoonu gaa yu baax yi fi laxas ba laxas ba dem fa ca yéen jaayante raw teeti suñ moor a xëy njëkk dem jébbal sëriñ bi dem di bind kaamil di jébbal suñ bu mag geeti mu sax ci loolu lu mat jiiru juróom yaari weer ba bi xëy ko gërëm takkal ko ndam yeeti yabal ko njàmbur mu dem mook dag ya ngir yaatalaat lu jiitu muy xëy di dem takkala soññeeti Cheikh Mastawaala itam baayam ba moo ko digal mu dem ca yéen jox jëmmam sëriñ bu mag kaamil la bind ba muy dem jox ko sëriñ bi fi gën ngir xam ne sëriñ bi mbégam mooy alxuraan jeeti foofa la sax ci mbégam di bind ak di liggéey ba sëriñ bi xëy ko gërëm yebal ko mbàkkaati digal ko toog fa ëttam baayam ba nekk ndawam ngir jëm na mag te jotam xatoon na loolooti ci moom la sax ba mu xëy yebal ko misra mu dem sanc ko moo ci fereem sax fa di tarbeeti gannaaw ba seen bàyyi làkkoo lañ wéyal ndigalam ku nekk sax ca la woon sëñ moor a wuutooti yilif njaboot gi wéyal mbooleem ndigal yi fi woon kër gépp neex nosuwaat barkeem ba law teeti sexasta yi ndigalam moo doon mu toog mesere di soññi taalibe yeeg di bay di yóbbooti léegi-léegi itam daana dem mbàkke ziyaare magam di sax ci moom fani fan ñuy wax ci léppooti suñ moor yi suñ daana wax njaboot ga sax fa këram xam leen ne tey du ma tànn kenn lum deeti ndax kat borom kër gi moo ñëw tey te lu fi dogal mooy dox li feeg delluwul dee leen ko laajeeti Seex Abdu mii fi newoon xalifa yàlla ne ko maamam teeru moo ki magam daana ko xam leeti nee moom nee moom ci suñ seex la nekkoon baayam ba moo ko joxoon mu far fa rek moom ba nim buy jee borom beeti ñoo bokk luñ dund it ñoom ñaar juróom fukki at ak ñett lañ am ci duniyaa néew na yaa tooti na yàlla bu dolli seeni may te jàpp njaboot di kattan ak may ba seeni yéene mat xeeti yow Moustapha ci géej xam ne mukk du te na yàlla dolli saxal xéewal ca kam jabaloon di Moustapha ak nenam ak àndandoom yooti waaleykum salaam wa wa barakaatu mbokk yi ngi leen di nuyu di leen ziar di leen ndokkeel ci bis bu mag bi nu koy amal di ko jagleel sunu maam bu baax ja sëriñ Cheikh Moussa ñu jagleel ko sëriñ moom soxna Taara mi xalifa bi ànd ak mboolem njaboot yi ànd ak mbégte loolu ñëw teew ci bis bi fekk si fekk fi suma suma bokk yu baax yi sëriñ Talla ànd naa ànd naa ak rakkam yi nga xam ne ñoom la seqal kër sëriñ moom soxna waa kër sëriñ Saam sëriñ Talla Mbàkke mi nga xam ne moo moo topp ci moom di jëwriñam dafa xaw sori waaye yebal na ay rakkam sëriñ Maamoun ak sëriñ sëriñ Cheikh ñu teewal ko fi waa kër sëriñ Bachiru Mor sëriñ alxaaji mii xalifa kër gi teew na fi ak lan na ci rakkam ñu góor ak ñu jigéen kër sëriñ Baara sëriñ Ahmadu mii xalifa kër gi teew na fi kër sëriñ Cheikh May sëriñ Mor Soxna mii xalifa ba teew na fi kër sëriñ Jiili Gànnaar sëriñ Mor xam sa diine mii kilifa kër ga teew la kër sëriñ Abdoulahi yàllaay ko moom ñoom ñoo ñu dalal ci dëkk bi sëriñ Talla mii kilifa kër ga ma nga ma nga ne toog waa kër sëriñ sëriñ Ndog sëriñ Fàllu teew na fi waa kër sëriñ Bakke Astu sëriñ Chouaïbou teew na fi waa kër sëriñ Mamour Pakala sëriñ Abdul Xafoor ak sëriñ Cheikh teew nañ fi teewal fa kër ga sunu bàjjan yi itam kër soxna Zeynabu sëriñ Cheikh Gaawaan ka mi ngi fi kër soxna Waalo sëriñ Saamloo ak sëriñ Taalaloo ñu ngi fi kër yi yëpp ma tudd itam jigéen ñi jigéen ñi kër ga ñu ci bari ñu ngi fi nañoo xaw a yéex jëm ci bind délégation bi moo tax te bëgguñoo lim di juum waaye jigéen ñi ci bari ñu ngi fi kon sëriñ Baara mi ngi nuyu ñëpp di ndokkeel ñëpp di rafetlu lool jataay bi ak waxtaan wu am solo wi fi imaam sëriñ Zaka Abdou Rahman def defe naa ñëpp am na luñ ci jëre di ko jëme woon ko ci jigéen ak solo jigéen mooy ndey umm fi ne luxaat làng yëpp boo ca demee daanaka lañuy ñuy tudde mooy la ëmb mbir yu ne la ko ëmb rek matière première ba mooy ndey dana la la suñ mbokk séeréer ba waxoon ne ndey mbind moo yàq na ndey mbill daa ñëw ci sëriñ bi muy tiim daam di bind ba koo bindalu téere wala wala wala lum naan mu ne ko tey ngaa far bàyyi ma naan ndey mbind mooy daaji daaji ginnaaw li ñu bëgg a lépp ngir daaji mu ne ma far mu far naan daaji loolu mooy misaal na ndayi ko mooy li ëmb lu ne ummul wax ne mooy xam-xamu sunu xam ne jóge demagul ca lawxu demagul ca daje foofu la ñuy tuddee ummul kitaab ndayi téere bi kon nday mooy lu ne moo tax jigéen waajal ko am solo imaam abdul hamid bul badis waxoon na xekk ma bu am solo daf na ida allamta waladan faqad allamta fardan wa ida allamta bintan faqad allamta umma nee na boo jàngalee góor dafa mel ne kenn rek nga jàngale ndax góor moom li mu yanu ab yanam diisu waaye boo jàngalee jigéen nag te jàng day ànd ak yar mu ne jàngal nga ab nation noonu la masuuliyat jigéen toll noonu la amee solo kon defe naa defe naa kon defe naa seen mbàkke junj na ko waxtaan wi tam bi ñëw na ci palaasam fan yi ñu génn gis ngeen ngóor soosu génnoon def sorti bu doyaar boobu bëgg wan jigéen ñi ne leen lislaam da leen a desal gannaaw lépp dégg nañ ko boole ko xamadi xamadi loolu gam waxi kàddu yi nga xam ne kenn du ci jaara bëgg wan na ne lislaam tere gin tere ñuy jox loxo jigéen kilifa yi di leen bañ a jox loxo wan ne dañ leen a xet xanaa kon xeet gi ci ñaari wet yëpp lay féete ndax niñ ko teree jigéen góor lañ ko teree jigéen jigéen ñi tam dañ leen a tere ñu jox la ko jàmbur yi góor yonente bi suñu borom daf ko ne qul lil muminina yaxuddu min absarihim wa yaxfadu furujahum waaye wa na lil muminaati yaxdudna min absarihinna wa yaxfadna furujahunna kon tere gi moom ñoom ñaarati ñoom ñaarati yam képp kon féetewul ci benn côté bu dee miraas lam ca wax itam góor ñaar jigéen benn mu bëgg a wane ne bëgg a jaxase jigéen ñeeg lislaam lislaam da leen a néewal doon loolu itam njuumte lu rëy la koo xam ni ñàkk yar feeñ na ci moo tax yar ko moom ci war a yar la yar ba tàmbali na ndax dàqe nañ ko fam ne ko waaye yar ba warut a yem boobu ne góor ñaar jigéen benn xeet jigéen la loolu ñàkk a dégg lislaam la lislaam sëñ Bàkke lu ci leeral doy sunu borom wax na ko xekk ma ba ca nekk dégg nañ ko waaye ci beneen wet ci beneen wet am na koo xam ne góor ak jigéen ñoo fay tolloole ci miraas ay doomi ndey boo leen di séddale seen miraas foofu du doon góor ñaar jigéen tam ci miraas am na foo xam ne jigéen mooy ëppale góor sax am na nit ki bu faatu woon bàyyi benn rakk bu jigéen bu mu bokkal ak bàyyi ak fukki rakk yu góor yu mbokkal bokkal bàyyi bu ñu leen di miraas daanaka jigéen jë dana am lu fukkute góor bi foofu kon foofu jigéen ëppale na jigéen ëppale na góor lu bari kon loolu waxam jooju ñàkk a xam la réere lislaam la lool kon jataay bi daal am na solo lool yu nii rek ni ngeen ko defee mooy moo am solo ci bis yi ñuy fàttali ko sunu kilifa yi ndax ñoom góor góorgóorlu ci lislaam ak ci àdduna dem nañ yóbbaale ko seeni ndam la seeni gërëm la kon topp ca seeni tànk rek moo moo moo ñu mën a may ndam waaye ñoom la ñu jëfoon moom yóbbaale nañ ko tilka ummatun qad xalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum wala tusaluuna amma kaanu yamaluun waaye nag bu ñu góorgóorloo danañ ñu yéegal ca ñoom wala alquran la walladina amanu wattabaatuhum dhurriyatuhum bi imaanin alxaqna bihim dhurriyatihim bu ñu góorgóorloo ñu yéeg loolu misaal mën naa mën naa mën naa bañ a sori misaal mi sëriñ Fallou moom sëriñ Gade ni di imaam sëñ Gédé dafa manoon alquran xarlu ci man ko ñu yóbbu ko ca jumaa ja muy imaam waaye sëñ xarlu bu ko topputoon ca mokkal ga kenn du ko yéegal ca jumaa ja loolu ku ne xam na kon wattabaatuhum zurriyatum bi imaanin loolu mën na koo firndeel laneen li koy firndeel mooy gis nañ ci alquran sunu borom wax ne maam yu ñàkk solo ya ba dem sawara bu ëllëgee seen sët ya leen topp ca ñàkk solo ya ñàkk solo ga danañ leen fekki sawara summa inna marjiahum la ila aljaxiim innahum alfaw aabaahum daalliin fa hum ala aathaarihim yufraun kon ginnaaw ñàkk solo yi dañuy fekk seen maam yi ca sawara kon ñu baax ñi it seen sët yi buñ def jaaree ci seen i tànk dañu leen fekk ëllëg ci seen kër yi xéewal yi insha allahu taala kon loolu itam ñu ñu góorgóorlu ci bu waax a baax noo sant baax turu seen baarakom suñ mbokk yi ci bis bi ñu jagleen seen mor soxna bi ñuy ñëw ci yoon wi amuñu yëg-yëgu amuñu yëg-yëgu dañoo jëm ci lu ñuy woo waaye dañoo am yëg-yëgu dañoo jëm ci luñu moom luñu moom yëg-yëg ba ñu amoon ba ñuy dem bétoo fan yële gi di fekk ci màggalu sëriñ Mor Soxna yëg-yëg boobu rek lañu ñu am tey bi ñu jëm si fii ndax xam nañ ne xam nañ ne lépp benn la kon nag sëñ baaram moom sëñ Mor Soxna la fi nekkal sëñ Mor Soxna li ñu waroon a tënk ci moom daanaka sunu rakk yu baax yi fi jaar ci seen xasida yu am solo yi sëñ Abo ak sëriñ Moustapha daanaka leeral nañu leeral nañu lépp ndax ñëw nañu ci ganeem àdduna poroxaan ak adiya ñëw nañu ci tërbiyam njàngam ak bi diggante Mame Mor Diarra ak sëriñ Touba fa la tërbi yow ba am seen i ngërëm sëñ Moussa kanam ko waxee ci marché yamba dàmbay na seen ñaari ngërëm ñëw na itam ñi mu toppee woon way juróom ñi mu nekkee woon ci moom amoon ci ndigalul yàlla ca ndax mm, sunu boroom dénkaane waaye am ci ndigalul sëñ bi ko ngir mu taxawu taxawu ko jaayante gi ñëw na ci ba nga ba mu ne sëñ Tuubaa moom lay maye ci moom mooy jaayante ndax wet lam doon ca boroomam dafa da ca niiru boroomam du ca mbokkum kenn loolu it lam ca war a def dem fekk ko jolof wax na ko ci xas yi dëgg yi ne ko man na maa bind man na maa yatt bindal fa sëñ Touba ay kaamil am na ci kaamil boo xam ne sëñ bi daa bind ca suuf di ko seereel ak texe ak ngërëm nga xam ne mbindum sëñ Touba la gis naa mbindum loxo ma ba noppee ay ñëw na ci sëñ Fallou sëñ Modou Moustapha sëñ Abdoulahi borom yi ba ci ba ci ba ci sëriñ Cheikh nga xam ne moom ñoom ñaar bànn lañu gis nga wax na léegi ne daana ñëw Mbàkke di ko fa gaana si lu mat fukki fan ak juróom te mu ñëwee day wax jigéen ñi ne leen lu ngeen di war a togg yoonam du ci nekk moom suñ mor soxna nag wax laaj dee leen ko laaj lu mu bëgg rek ñu ñu def ko kon sëñ Baara nee na ginnaaw moo fi nekkal sëñ mor soxna te sëñ mor na mooy kilifa kër Maam Mor Jaara kon moom masuuliya boobu la yëg yëg ne mooy jëwriñi jëwriñ la ci si mor sëñ mor soxna waaye day amee maanaam mën a wax ak njabootu Maam Mor Jaara gépp kon mi ngi soñ ñëpp ci ñu gën a doon benn ndax mbooloo mooy doole na ko wolof di waxee sëñ Touba ba muy ne ca géej gi dafa bindoon bataaxal Mame Mor bokk na ca lam ko ca wax wàll yëkkul daal di tudd na ci ay rakam diw ak diw ak diw nañ nekk ak yow fii min nga fii am ren waaxit la ko nañu ñëw ci yow ngay seen kilifa ngeen di yëkkati yëkkatee ndoo di tegandoo loolu nag sëñ Bara ne mi ngi koy fàttali ci njabootu Mame Mor Diarra gépp ndax bay ci say woo kon nañu nañu fexe doon benn te bañ a yemale rek eh, ànd bi ci kàddu yu rafet yi ci jataay yu mel nii loolu moom miin nañ ko lool man koy dolli nag di ko wéyal la la la la waykatu arab ba waxoon walaysa axi man waddani bi lisaanihi walakin axi man waddani fi nawaaidi wa man maaluhu maali ida kuntu mucdaman wa maali lahu in adda dahrun bi xaabi nee na sama mbokk dëgg du ki nga xam ne rek damay ragal sama gannaaw fu mu toll di wax wax ju rafet ci làmmiñam di feeñal ak cofeelam te ci làmmiñam la yam mu ne waaye sama mbokk mooy ki nga xam ne fu ma gëstoo gis ko rawatina ci jamono yu metti mooy koo xam ne alalam sama alal lay doon fu ma fu ma fu ma fu sama loxo jiitu sama loxo jiitut sama gannaaw waaye sama alal it alalam lay doon moom it bu ko jamono jàppee ak bokk kon waruñ ko yemale ci jataay yéeg tudde rek li ci ëpp nag ci la yem tudde waa kër gi ñëw ñu wax wax ju rafet bu ñu demee noppi nañ ci waaye nun waruñoo yem foofu ndax dafa am lu ñu lu ñu seq lu ñu boole la ca jiitu nag dañ ko war a xam dañoo war a xam ne Mame Mor Diarra kenn ku ko seddoo ku ko seddoo sooyoo képp képp ku mu wis ciir ci Serigne Touba Mame Mor war ngaa xam ne la sëñ Moussa Ka waxoon ca xarnu bi noo sedd tegg cër bu doon ndax kenn gënu ko jege sëñ Tuubaa li mu li mu li mu bokk ak moom ku ne xam na ko waaye ba wet ga ca des Cheikh Ahmadou Bamba dafa am abdullahi wa xadimu rasulihi am loola itam la cay maye dafa dafa jaayante def ko ba am ca la ca ñëpp am kon boo tuddee bokk gi mu gën a jege ñëpp boo tuddee jaayante gi itam ak cër ya mu séddu ca na ca ñëpp seddee wala ñu baree bari mu rawaleen ca te sëñ Tuubaa nag moom moo dimbali ñëpp walla ci ndimbalul yàlla ñëpp ci sëriñ Tuubaa leen dimbale ni mu ko waxe woon ne yàlla dana dimbali ci man ku ko soob tey ak ëllëg kon kër yi nga xam ne mooy kër askan wépp ñoo war a doon benn waaye mbay ci sa wóom li ma ko waxee nañ ko tàmbalee ci kër gi bu ñu defee noonu daarul mooti def ko daaru salaam def ko kër yëpp def ko la sëñ Tuubaa waxoon ne wala yëkkoon diw ak diw ak diw min ko fii am ren waaxit dana ko am ci askan wi ndax ñoroon na ko mu bind ko don benn kon nan ci nan ci góorgóorlu bu baax a baax bu ñu doonee benn ñun ñëpp nag sëñ Tuubaa nañu wéy di ko ber moom sëñ Tuubaa nañu wéy di ko ber ndax moom dafa ne yàlla ber na ma yàlla ber na ma afradani afradani l baaqi li wajhihi l karim wa qaadali minhu mazaya laatari kon daal kàddu yi ne ci maanaa cant gi ak mbégte mi ne ci xooli bokk yi tàmbale ci sëñ Baara ak rakam yëpp ñu ma ko waxee làmmiñ yi lottu nañ ci tudd ko moo ngi leen di sant bu baax di leen gërëm wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakatu wasalaatu wasalaamu ala sayidina muhammad al amin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam mbokk yi ñu ngi leen di nuyu di leen ziyaara bu baax di leen ndokkeel di am mbégte mu réere ci jataay bi ak teewaay bi ak safoo gi ñu safoo wettali konte ak ñun ci suñu bis bu màgg bi ñuy tënk ay kàddu yu néew rekk ci turu mbooloo mi nga xam ne ñooy sëtoo ci suñu maam Sëriñ Seex Asta muy kàddu yu cant kàddu yi ngërëm ñu jëmale ci suñu mbokk yu baax yi nga xam ne ñooñu wuyu si ci woote bi te woote bi weesuwul rek woote sant suñu boroom ak sant Cheikh Ahmadul Xadim radiyallahu anhu jaare ko ci suñu maam jooju di sëriñ Cheikh Asta Walo ci digganteem ak sëriñ Touba radiyallahu anhu muy yoon wi mu demee woon ci yéen Jolof di jébbali boppam sëriñ Touba li sëriñ Abu daane waxee ci biir kàddoom léegi muy la sëriñ Touba la nekk ci Serigne Touba te ku ne soxla ko loolu la doon wuti jamono boobu waaye booba fàtte na askan ak bokk waaye ñu am mbegte mu yaatu ci bi ñu wootee ni ñu ñu wuyuse ñu yëkkati kàddu di wax ne mbooleem njabootu Serigne Cheikh Assawaalo gi ñëpp ci góor ak jigéen ñu ngi leen di wax jërë ngeen jëf ci wuyusi bu rafet bi ngeen ni wuyusi tàmbalee ci ñi nga xam ne ba ñu tàmbalee liggéey bi ba léegi ñi ngi ànd ak ñun ci yaatal ko ak fexe ba mbokk yépp yëg ko ba mën koo teewe ba ñu mën koo ànd lu ci nekk ci aw yiw ñu mën koo bokk ak ñoom ñu ciy jiital ñi nga xam ne ñooy kuréel bi yor wàllu yëgle ci biir njaboot gi nga xam ne wareesu leen a sant waaye warees na leen warees na leen a joxoñ ba ñu xam ne seenu liggéey bàyyi nañ ko xel bu baax ci suñu biir ci biir njaboot gi te sëriñ soxna bu Mbàkke mi jiite woon ko ñu doon liggéey liggéey bu rëy ci wàllu nan la def ba nit ñi bu ñu leen woowee ba ñu ñëw ñu mën a ñu mën a teg ci seen loxo lu am njariñ sëriñ bu ak sëriñ Saam boroom Saam ak mbooloo mi ñu àndal ñu liggéey ci liggéey bu rëy liggéey bu rafet bu mucc ayib ba moo tax suñu jataayu tey bii ñëpp seen xol sedd na ci li fi génnee kon ci turu njaboot gi ñu ngi leen di sant bu baax tàmbalee ko foofu waaye di sant tamit mbooleem ñi nga xam ne ñoo ñu doon jàllaleel kàddu yooyu ci biir liggéey bi ci yëgle bi ci wàllu i'lam bi muy Rafah Rafah yi ñi nga xam ne ànd nañu ak ñun ci tàmbali ba ànd ak ñun ci biir waajtaay wi ànd ak ñun tamit ci jataay bi ñu ngi leen di euh, beral ay cant yu yaatu ak Misra TV ak Intelligence TV Lamp Fall FM ñu koy beral ak cant ak i ngërëm ci émission yi nga xam ne yaatalal nañu ko ñu def ko fa lépp ngir yaatal njàngalem ak njàngale ak dundu mag ñu baax ñooñu ci biir liggéey boobu woon nañ ñenn ci njabootu suñu Mor Soxna ñu ànd ak njabootu Serigne Cheikh bokk jataayu waxtaan yooyu ngir feeñal liggéeyu ñaari mag ñu baax ñooñu nga xam ne ñoom lañu boole jataay bi ñoom lañu boole bis bi kon ñi ngi am mbégte bu baax ci loolu nga xam ne jaar na ci wàllu yëgle yooyu ak anam gi ñu ko doxalee di leen ci beral ay cant ak ay ngërëm ñu sant bu baax mbooloo yi nga xam ne ñoo jóge ci dëkk yu ñu wër yépp ak yu jóge ci mboolem gox yi nga xam ne ay wolere féete nañu fa ak ay njaboot ci kër yi ñu wuyu si sëriñ bi ci bis bi tàmbalee ko ci ñi nga xam ne sori nañ féete bitim réew te seen yëg-yëg wane ne war nañoo ànd ak sëriñ bis bi lañ man lépp ñu def ko ak ñi nga xam ne ñoo féete ci biir réew mi ci gox yépp mënee suta lim ngir bañ a bàyyi benn gox waaye ñëpp ñu ngi am cant ak ngërëm di leen xamal ne seenu jàpp ak seenu yittewoo tax na ñu am li ñu doon sàkku ci bis bi am la nga bëgg lépp yombul waaye wax dëgg yàlla suñu xol sedd na ci liñ jot a am ñu ñaan suñu boroom mu defal ñu ci ak ndollan bu ëllëgee ñi nga xamante nii ñoo dëkk ci gox bi muy dëkk di wër misare ñoom it gis nañ seen taxawaay ci seen doole seen taxawaay ci ak wettili wettili ñu ci ànd ak ñun ci ay xalaat ak ci liggéey lépp ñu ngi sant yit waa dëkk bi nga xam ne ñoo ñu doon féete ci wàll gi nga xam ne mënee su fa woon a féeteel suñu bopp seen taxawaay ca tàmbali waajtaayu bis bi ak ci biir liggéeyu bis bi yëpp ameel nañ leen cant ak ay ngërëm ñu ngi leen xamal ne bàyyi nañ ko xel bu baax gan ñi nga xam ne it bi leen wooyee ci wooteeb lislaam wuyu nañu nañ ñu ameel nañ leen ay cant ak ay ngërëm waaye ñu sant bu baax njabootuk sëriñ Mor soxna suñu maam mi nga xam ne ñoo wàcc seen kàddu léegi te wuyu si ñu ci bis bi wuyu si bu rafet waaye bi ñu leen di woo bàyyi woon nañ xel ne ñii ñuy woode di leen di wax na ñoom lañ darajaale bis bi dañuy fedd li ak ay yeesalaat li doxoon ci diggante mag ña waaye xam nañ ne buñ leen ci tudd doon ci bis bi it buñ geesoo seen leen loolu bir nañu ndax yàgg nañoo taxawal ay bis te saa buñ gestoo gis gis leen suñu wet kon xam nañ ne dafa am luñ jubloo génne rek ci biir kër gi moo waral moo sabab lii ñu tàmbali ngir wane ne suñu mag ñi am nañ lu ñu yëg-yëg yu ne woon ci seen xol am nañ lu ñu doon dundal ci seen diggante lu rafet loo xam ne wares na ko jàngat wares na ko bàyyi xel man cee teg suñu tànk tabax la laneen sëriñ Mor Soxna moo mi nga xam ne moo njëkk wuutu sëriñ moo njëkk wuutu maam borom saam moo njëkk doon ab xalifaam diggante bi mu bi mu nekk Mbàkke liggéeyal fa borom saam liggéey bu yaatu waaye ci liñ ci mën a tënk rek mooy ginnaawam suñu maam suñu Seex Asawaalo mii nga xam ne tey moom lañuy tàntal ginnaaw suñu Mor Soxna la ñëw ci jataayub sëñ jataayub maam borom saam moo ne ba mu ñëwee de fekk fa benn coono ci la mu war a def ndax coono bi jiitu ci njiite ak njaboot mooy ñëw di leen dajalewaat ak di leen nos te loolu fekk na sëñ Mor Soxna def ko ba noppi fekk na sëñ Mor Soxna nos njaboot gi tëral aw tëralin aw doxin ci kër gi tëralin wu rafet boo xam ne la ca jiitu mooy taxawal kër goo xam ne da ko féetale maam borom saam mel ne loolu ginnaaw bi sax lañuy gis mu am waaye dañuy xam ne foofu mën nañu jàpp ne bu ñu yëree ci ñi gëstukat yi suñu mor soxna loolu bokk nañ ñi ko njëkk a def muy wutal kër wutal kër kilifa kër googu bi mu ko bi mu ko defee defal ko maam borom saam loolu liggéey la bu rëy boo xam ne da koo defal ñi ñëw ginnaawam boole ci nag nos njaboot gi ba suñ maam Cheikh Assawala bi mu ñëwee loolu doonatu doon ab liggéeyam diir bi mu fi am gàtt na waaye noppalu na ci lool te noppal googu suñ maam suñ mor soxna mook ko mook ko defal juróomi at rek la fa def waaye mën nañ ne daanaka la fa nekkoon li fi nekkoon masruwam moo fa mu tàmbale woon mooy ci barabu jéem a liggéey barabu borom saam bi kon noppal na ko waaye tamit doonoon wéttalam doonoon tamit magam ju ko féete woon fépp kon daal am nañ ay cant yu rëy rëy jëme ci yéen ginnaaw bu ngeen doonee suñu mbokk yu ñu wéttalikoon waaye tamit di fedd di ak di fàttaliku bu baax loolu doxoon ci diggante mag ñi ci ak bàyyente xel ne loolu rek moo sabab ñuy geestu ñuy geestu ci tuddee leen bis bi wala darajaale leen ko ngir bëgg ñu dundalaat loolu nga xam ne moo nekkoon ci diggante mag ñi <coughs> ñuy daaneele suñu kàddu ci cant goo xam ne dañ koy cant dañ koy sant suñu kilifa gu baax gi di sëriñ Mbàkke Faajama moom sëriñ Gédé di xalifa sëriñ Seex Asawaalo ci kàddu mbooloo mi ñu ngi lay sant bu baax cant yu yaatu cant yu màgg la ci sabab bi ci jiitu mooy kilifa gu doyloo ay njabootam bëgg na leen a liggéeyloo waaye tamit dana leen noppal ndax sëriñ bi xam nañ bu baax sa njàmbaar ak sa fit wu rëy ci liggéeyal sëriñ Touba. ak maam borom saam ak ñàkk ragal ku la mere ci lépp lu baax biir nañu ne boo jëlutoon liggéey bi teg ko ci suñu loxo it lépp lu ci war a yéwén dana yéwén bu ñëpp demee da ànd ak ñoom liggéey bu ñëpp toogee it da nga ndax toogoo seetaan kenn mu lay defal waaye kóolute gi nga am ci njaboot gi ba yëkkati liggéey bépp teg seen loxo loolu mbàkkee ameel nañ leen ci ameel nañ la ci cant yu rëy yoo xam ne njaboot gi yëpp maase nañ wax ko foo ci wéet waaye tamit moo tax ñu yëkkati ko ngir jottali la ko di ko sante yàlla bu baax ci yow ndax am kilifa gu mel noonu it dana tax a góorgóorlu kilifa goo xam ne dalay doyloo kooku dalaa sas loolu moo tax ñu ngi lay sant bu baax ku ne xam na ne nii muy nii mu yanoo ci njaboot gi ci kër gi ak njàmbaar ak yéene ju réy xol bu rëy ci def lu baax moo tax waaye yëg-yëgam saa yu nekk mooy lépp luñ bëgg a def barki démb rek ñu toogee fii suñ ndaje dernier suñu ndaje mu mujj dafa wax ne genn kàddu la wax seet leen nu ngeen yaakaar ne noonu lay baaxee ngeen wax ma ko Sëriñ Tuubaa am jeexalu dara ndax nee na noonu la ko kilifam daan daan liggéeyee ak moom moom it noonu lay liggéey ak ñun ñun nag ci suñu yaafus dañuy fortaat dajalaatu ay tuuti tuuti jox ko waaye na muy def ba sottal mbir yëpp day ump ñëpp mu noppee lam cay lam cay jànkonte lépp moo koy wéetoo kon kilifa gu mel noonu ku ko am war nga koo sant war nga ko ñaanal mu yàgg fi wér ndax saf sag la sëriñ bi ñu ngi lay sant bu baax di la gërëm te di la sagoo di ñaan suñu borom mu yàggal la fi lool ba nga àggale say naal ak say mébét njaboot gi yëpp nga xam ne daal njaboot yi ñaari kuréel rek moo am hada min chiatihi wa hada min aduwihi waaye na nga xam ne njabootu sëñ Cheikh Asta Walo yëpp ci say asiyaax lañ fas yéenee bokk muy ñëpp ñu ngi sa ginnaaw lépp loo bëgg rek boo ñu ko joxeñee incha allah danañ ci taxaw ba mu sotti donte suñuy kàttan néew na ca waaye suñu pas-pas ak suñu yéene matale na ko ñu ngi lay sant bu baax di ñaan yàlla yàggal la fi yàlla wéral la ba sa yéene yëpp nga mottali ko ànd ak yow ab sag la ànd ak yow day dolli nit aw fit ñu ngi sant bu baax suñu Euh, mbokki jigéen yi nga xam ne yit dañuy féete ci suñu wet ci wàll yépp te neex àndal lool ci ab liggéey ci anam guñ leen woo rek ñu wuyu suñu ca ñu ngi sant bu baax di gërëm ñépp xanaa di tënk rek di xam ne cant munta weesu cant te bu yàggee mën naa jur nga fàtte wàll góowar te fàtte kon ñi ngi am xol bu sedd di ñaan suñu boroom mu kàttanal ñu ba li nekk suñu kanam ci ay procès yépp ñu mën a taxaw ba jëmmal ko may soññ sama bopp ci wàllu ñun ñi nga xam ne ñooy sëti yi ñu xam ne am nañ ay sas yuñ sasoo woon ci wàllu ay liggéey yu nekk suñu kanam waaye ñu xam ne am na ci boo xam ne moom lañ ci gën a jël muy awlawiya mu bu ci jiitu mooy këru suñu seexa sawaali gi ci Mbàkke Xewar bàyyi xel ne amoon nañ ci aw sas wuñ ci sasoo woon ak pas pas buñ ci fasoon yéene doxe ba sëriñ bi defaroon na plan bi nga xam ne moom lañu fas yéene liggéey ba yépp sotti na ba am na luñ ci tàmbali woon a doxal loolu ñu ngi leen koy fàttali ñu bàyyi ko xel bu baax xam ne danañ ci soññewaat te xam ne foofu mooy mooy bunt bi gën a yaatu bi jiitu bokk ci suñu liggéey xaasa wasalaamu aleykum wa rahmatullahi amiin muy salaatu rek mooy di sa faal. ñëpp yal na ko yàlla seen tubaab. yal na ko daaje at yu bari. dana indi si faraxaay bu xëy am droit dugal maa din. indi si faraxaay bu xëy am droit dugal maa din. indi si faraxaay bu xëy am droit dugal maa din. bu kun na ma bu kun xam. amiin. سعد بن سعد يقول كل أحد أمين يفعل كل ما أعرف ولك مراد أمين يفعل كل ما أعرف ولك مراد سبحان ربك القريب مسافر لم يرى قريب من قد هدانا وأنا ولد ولد أخصم أحرم بلا نقبة ولد قدر بالمربى من سرعة تنطلع من دامة ليس بدون أقلام amiin seen chaîne de télévision culturelle et religieuse Rafah TV ñëppay dañ agréer